alhamdulilahi rabbil alamin nu wéyal fi nu yemoon aslaf door a taxaw insha allahu taala sunu boroom subhaanahu wa taala mi ngi jëme ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax joo xam ne keneen mën na caa tàbbi ndax la muy sàkku mu seetlu ko ci xolam gis ko ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam bu ko seetloo mën na koo gis mooy alam tara xanaa gisoo du bët nag waaye xol la ndax li ci topp sunu boroom yàlla di ko xibaar ca na mu doone day mel ne yaa ngi janloo ak moom ci sa bët alam tara xanaa gisoo ne anna allaha yàlla yusabbixu lahu dana ko sàbbaal man fi samaawaati ñi nekk ci asamaan yi asamaan yi malaaka yi fa la ñu nekk ñooña sàbbal yàlla guddi sàbbal yàlla bëccëg sàbbal yàlla ci waxtu wu nekk mooy seenub liggéey wa inna la naxnu saafuun wa inna la naxnu almusabbixuun yusabbixuuna allayla wannahaara laa yafturuun xanaa gisoo ne sunu boroom ñi ci asamaan yi dañ koy sàbbaal muy ñan malaaka yi noona wal ardi ñi nekk ci suuf muy nit ñi ak jinne yi ña ca gëm yàlla ña ca gëmul yàlla itam seeni cër ma ngay sàbbaal sunu boroom subhaanahu wa taala ci sañ bañ bal sunu boroom subhaanahu wa taala fii daa am yu mu génne rek di tudd seenu sàbbaal waaye daf noo jàngal ne lépp a nga koy sàbbaal loolu la nu jàngal ci suuratul isra amut lenn loo xam ne nekkul di sàbbaal boroomam wa in min shay'in illa yusabbihu bi hamdi lépp nag laa wax bàyyiwuma dara amut lenn loo xam ne nekkul di sàbbal yàlla yéen ka yéena mënta amuk dégg ca na muy sàbbaale walakin laa tafqahuuna tasbixahum wa tayru noonu itam njanaaw yi njanaaw yi mooy lépp luy naaw picc yaa nga ca biir pitax yaa nga ca biir tan yaa nga ca biir ak lépp loo xam ne ñanaaw la yama xam seeni tur ak yama xamul seeni tur yépp ña ngay sàbbaal suñu boroom subhaanahu wa taala wa tayr saafaat mooy tàllal seeni ajiniha xam ngeen ne njanaaw yi dañoo am ñaari xeetu doxin njanaaw yi dañoo am ñaari xeeti doxalin doxalin wu njëkk wi mooy di naaw di def nii di yëlëb seeni laaf di naaw di dem ba yàgg ñu dajale laaf yi maanaa sësale ko ci seen yaram noonu laa ko mën a waxe di dem nga xam ne day mel ne bu fekkoon da nga naan ah njanaaw lee may gis day li tax muy naaw mooy nii mu yële bi ay laafam suñu boroom subhaanahu wa taala ci kàttanam daa di koy xiir mu daa di jël laaf ya taf ko ci boppam ba noppi teewul ma ngay dem moo tax borom bi di la xolloo loolu alam yaraw ila toyri fawqahum soofaat wa yaqbiduna wa yaqbiduna suñ borom tëggewu ko ni mu tëgge soofaat naan qaabidaat ndax wa yaqbiduna li mu koy def léeg-léeg la maanaam soofaat moo gën a bari ci aw doxinam moo tax da ko tëgg ismu faa la ko def wa yaqbiduna dana ko def waaye li mu koy def bariwut xanaa xamu leen woon ne tubaab yi seenug yeewu dégg nga seen avion yi ñu liggéey ndax xamoon ngeen ne ñi ngi ko toppandoo ci picc tubaab yi dama ne avion yi ñu liggéey ponkalum avion dégg nga ma ñi ngi ko toppandoo ci picc moo tax boo xoolee avion ku ko mën a abrégé ci yéen kan moom moo ko mën a ijjël ah naka lañ koy binde a lañu bind ak lan v a bi day taxaw taxawaayu appareil appareil daa tënk avion moom nga gis baat bi dañ koo tënk mooy kalima la boo xam ne maanaa dañ koo tënk a bi day taxaw taxawaayu appareil v bi day taxaw taxawaayu li ñuy wax volant mooy luy naaw luy naaw appareil boo xam ne day naaw lu topp ci v bi i mooy boo xam ne day imité mooy day day toppandoo day day day toppandoo lu ci topp o o mooy uwaasu mooy ab tayir mooy ñanaaw yi lu ci topp n moo ci topp muy na nature naturel naturel laa bëgg a wax maanaam oiseau naturel mooy piccum cosaan picc picc yi nga xam ne ñoom la sama borom yàlla bind benn appareil ngi nii boo xam ne da leen di toppandoo xoolal baatu avion boo ko déggee muy rëy fi yow fekk tubaab bi danoo bëgg a xamal ne appareil ngi nii buy jéem a toppandoo picc yi nga xam ne ñooy ñoom ñooy naaw naaw cosaan ñoom nga xam ne duñ soxla essence soxla wuñ gasoil soxla wuñ daara lu ñu leen di defal ab avion man su ma gisee léeg-léeg rek damay xaw a jàpp tuuti ndax ponk ni mu ponkalee ak picc ni mu tuutee ni mu ponkalee xoolal yàlla ni mu xereñee ci li muy liggéey yàlla ni mu xereñee ci li muy liggéey suñu borom yàlla ni mu xereñee ci li muy liggéey dama mas a dem benn hôpital fii ci dëkk bi fa nga xam ne fa la ñuy yóbbu ñi ñi am feebaru rein maanaam ñuy def jalis ma fekk fa ponkalu machine moo xam ne machine boobu ci boppam mooy taxaw taxawaayu rein te rein daanaka mën naa wax ne ab doomu gura lay tollool lépp lu nekk ci sa yaram wi ci deret moom moo koy filtré moo koy segg ndax nit am na ci ñaar benn bi sax daanaka ixtiyaatu yi rek la bu yàqu woon beneen ba dana mën a dox léegi nag machine ba nga xam ne moo ñëw di jéem a taxaw taxawaayu liggéeyam daanaka xaw naa xaw naa tul nii nii wallahi xaw naa tul nii daanaka xaw naa tul nii nga xam ne day jéem a taxawee li rein di taxawe loolu lay taxawee. terrain yow sa deret ji lim ciy segg ci par bis ci ay litre yàlla rek moo ko xam te nee ñu dana ko segg ci bis bi fanweeri yoon ak juróom-benn nga xam ne tey ji da nga naan amul benn maire boo xam ne fal nañ ko mu fonkee ab dëkkam noonu nga xam ne bis bi dëkk bi danañ ko seetal dégg nga wut na maanaam ñoo xam ne si ñoom dañoo taxaw pour seetal dëkk bi maanaam daanaka lu mat fanweeri yoon ak juróom-benn ci bis bi. benn yoon sax duñ ko def yàlla sama borom boole la ak benn rein boo xam ne moom taxawaay boobu la yor ci sa yaram yi ah gis nga jëmmi doomi aadama su borom yàlla su fekkoon ne da ko leeralal dëgg nit ki jëmmam ji ni bindoo xeeti appareil yi nekk ci biir rek seen fonction yi la ñuy liggéeyee day mujj daanaka yow da ngay mujj toog rek da ngay rus sax maanaam yow kan ba yàlla boole laa yu mel nii yépp ñuy taxaw sa mbir nga xam ne tey jii tibb bi soo ko tibbee ba sàqame ko ba àggal yeneen liggéey ca des yépp ba ni muy reese ba ni ngay soxlaa sa bopp yooyu yépp suñu borom yàlla da koo def muy loo xam ne yow xamu ci dara xamu ci dara waaye bu leeroon ci sa bopp wa fii anfusikum afalaa tubsirun bu leeroon ci sa bopp daanaka ci sant yàlla ci ngay dégg kon li ma yóbbu foofu mooy wa tayr saafaat maanaam njanaaw yi nekk ci asamaan si ñoom itam dañuy sàbbaal yàlla fekk am pitax mu la defut dara nga dóor ko xeer yow la yow ah dóor nga kuy sàbbaal yàlla dégg nga waaw loolu na ko mën a jaare pour nga bàyyi ko wa tayru saafaat kullun yooyu ma tudd wala yii ma tudd yépp mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci asamaan ak ñi nekk ci suuf ak njanaaw yeeg ku ci nekk xad alima xam na salaatahu xeetu julleem ga muy julli ndax yii yàlla tudd am na ci ñoo xam ne julli wuñ dañuy sàbbal waaye yii yàlla tudd ku cay julli ku nekk xam nga na ngay jullee yow ku cay sàbbal itam xam nga naka ngay sàbbale kullun xad alima salaatahu wa tasbihahu boo gisee ma firee ko noonu dañ ne at tasis moom lañ gën a taamu ci takiid bu fekkoon dama ne kullun mboolem yooyu ma wax xad alima delloo damir ji ci yàlla yàlla xam na salaatahu naka lay jullee bu dee kuy julli wa tasbihahu kon wallahu ji may indiwaat day takiid damir jooju noonu ndax xad alima jooju huwa ji ci dellu ci yàlla lay dellu te wallahu itam yàlla la kon foofu da ngaa tàkkiit waaye doli woo dara da ngaa tàkkiit rek ulamaa yi nag dañ naan saa boo xamee ne tàkkiit dafa daje ak taasis kon dañuy jàpp ne taasis mooy yokku maanaa yokku maanaa mooy lan yii yàlla tudd yëpp kenn ku ci nekk bu dee da ngay julli xam nga naka ngay jullee bu dee da ngay sàbbaal yàlla xam nga naka ngay sàbbaal yàlla doora nag ñëw ci wallaahu xam ngeen li wax baax wallaahu yàlla alimun ku xam la bi maa bi ma la bi maa yafaaluun bi maanaa yàlla sunu boroom xam na yépp seen jëf yi kullun qad alima salaatahu wa tasbiha wallahu alimun bi ma yafaluun màggaayu yàlla ëpp na ma xel yàpp màggaayu sunu boroom yàlla ëpp na am xel ëpp na ko da ko ëpp koo xam ne mboolem loo bind mi ngi lay sàbbaal lépp loo bind rek mi ngi lay sàbbaal bu dee njanaaw yaa bu dee xar yaag bëy yaag malaaka yaag jinna yaag moo xam ñu sàbbaale ixtiyaaran ci seen tànn bopp wala ñu lay sàbbaal te fekk duñ ko sañ a bañ waaye sàbbaal gi mënta ñàkk moom borom bi nee na walillahi mulku samawati wal ard nee na moomeelu asamaan ak suuf sunu borom rek la ñeel walillaahi yàlla waxut mulku samaawaati wal ardi lillaah te moo ne lillaahi mooy xabar ji de waaye dafa jiital xabar ji ngir lan ngir alxasru mooy takk bi maanaam lépp loo xam ne lu dee fi moom la nga xam ne ci mamaalik yi la bokk lu dee fi moom la ci asamaan ak suuf lépp kenn ko moom mu yàlla moonu moom nun ak li nu moom yàlla moonu booleeg li nu moom moom mu leer fi yéen yàlla moonu booleeg li nu moom moom sa fas wi sa mbaam mi sa bëy wi sa xar mi sa kër gi sa lépp sa sa lépp loo xam ne moom nga ko rek yàlla dalaa booleeg loola moomaale ko bi maanaam lépp loo xam ne lu ñuy moom la rek maanaam mooy lu dul moom rek ci gàttal loolu bi boobu ngay tënk loolu ngay wax rek maanaam lu dul moom rek qul a ghayra allahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli shay ah wa huwa rabbu kulli shay suñu boroom yàlla moom moom lépp te loolu yaakaar naa ne ku ko xamee noonu war koo jaamu ndax boo gëmee ne lépp moo ko moom kenn ku fi moom lenn ab dof waxoon na ma ko daa koy nett lu bëree bëri ab dof moo ma waxoon ne ma daa fee ñëwoon ñu ne ma da ngaa génn da ngaa julli ji loolu la ma waxoon sax da ngaa julli ji waaye daa am lu ma la bëgg a xibaar ma ne ko lu mu doon mu ne ma dama laa bëgg a xamal ne lépp loo xam ne mi ngi ci kaw nu bii kenn dong nga ko moom lépp luñ fi wax nit yaa ko moom nag sama moroomi jaamu la ko wax waaye yàlla waxulu ko noonu la ma ko waxee daal ne fépp suuf sax kenn moomu ko fi ku dul yàlla xam nga daf yi nag yenn saa yi day mel ne da dañuy dañuy wax loo xam daa mel dañ leen ko waxloo tey day mel ne ab risaala boo xam ne si maanaam yàlla dala ko bëgg a dégtal noonu rek nga dégg ko ci foo ko mën a dégg baax na waaye daal kooku ma ab dof la moom mi ngi mel ne suñ taal mi nekk ci jam ci jabi marché bi nee na ab dof daa ñëwoon fekk fi muy jaayee téere muy xool téere yi di xool téere yi ba daal di gis alxuraan daal di koy joxañ daan ne ñàkk sikk waaw ne ne na man keroog dama dama tiitloo waaw ma ngi koy joxañ naan ñàkk sikk est-ce que boobu doom de waaw wax wax jooju de maanaam amul kenn ko mën a mel alxuraan nu gën a rëy loolu daanaka ah maanaam téere bu ñàkk sikk dëgg dëgg dëgg mooy alxuraan de ma ma nga ma ngay doxal na ñàkk sikk ñàkk sikk wax na dëgg de alxuraan amul benn sikk mi ko mooy mel yu ko yàlla sama borom njëkk a jox safar benn yoon waaw daalika daalika kitaabu laa rayba fii borom bi nee na walillahi mulku samawati wal ard daal ci teg ne wa ila llahi almasir lépp nag fa moom lay mujj loolu nag raglu nag nag lim ne wali wa ilallahi almasiru loolu raglu na ndax lépp fa moom lay mujj bi maanaam mi ngi mel ne lim tëje suratu shura daa ne alaa ilallahi tasirul umur na ngeen xam bu baax ne mbir yépp fa yàlla lay mujj sama mbir ak say mbir ak lépp sunu borom yàlla fa lay mujj alam tara xanaa gisoo ne anna allaha yàlla yuzji lan mooy al izja asja yuzji izja an yuzji mooy di jeñ dara di jeñ dara te ni nga koy jeñe mu ànd ak ndànkal loo xam ne ma ngay dem ña ngi koy jeñ waaye boo seetluwul sax da ngay defee ne maanaa kenn jëñu ko waaye day dox dox yéen wu ndànk lay dox loolu mooy al isja xanaa gisoon ne suñu borom yàlla yuzji day day day day day day day day màng ah lu muy lu muy lu muy màng noonu saxaaba niir yi du xam ngeen niir yi niir yi nga xam ne ñoo nekk ci asamaan si suñu borom yàlla li ngeen di tuddee yéen nawetal asamaan saa ngi nawetal loolu ngeen di tuddee asamaan saa ngi nawetal bu nawet jotatee na ngeen bàyyi xel ci laay ji may wax aw niir day nekk fële aw niir nekk fële aw niir nekk fële léeg-léeg fa mu mel ne ko waaju taxaw di fetal ci nim ci ci nim lay jox wala mu mel ne ak gaynde gu gu buub fenn maanaam ni niir yi ni ñuy def ci asamaan si léeg-léeg boo ko dee xool ni sax dafa am saklu bu mu lay jox ba noppi nag nga gis leen maanaam wenn wu ci nekk di dox ndànk di dem muy dox ndànk di dem kana koy doxloo ndànk muy dem yàlla xanaa gisoo ne yàlla yus ji saxaaba loolu mu si jublu muy wii nii ak wële ak wële daa bëgg ñu bokk daje moo tax benn bu ci nekk mu koy jeñ ndànk muy dox ndànk di fekki boroom ja bu ko defee mu indi summa ji wane ne maanaam dox ba mën naa def as liggante waaye fa mi mujj rek mooy summa yu allifu bay na ko mu far leen boole mu far boole wane woon fële ak wane woon fële ak wane koon fii yépp su borom far boole leen dégg nga su ma yu alifu bay na ko su leen boolee nag su ma yaj'aluhu rukaama da koy def léegi mu nekk rukaam mooy mutarakiban ba'duhu fawqa ba'd léegi nag ñu far roofaloo far rankaloo far benn yoon nga xam ne wenn niir lay mujj doon léegi nekkatul ay niir waaye wenn niir lay doon ñu naan asamaan saa ngay sàq niir waa ngay sàq niir waa ngay sàq ba yàgg mu far def wenn wenn niir woo xam ne lépp day far ñuulandoo benn yoon bu boobaa nag fataraa nga daal di gis alwadaxa maanaam toq yi taw bi nga gis ko nag yaxruju muy tàmbali génn nag min xilaali yi bi maanaam ci biir niir yooyu noonu day mel ne ab tame boo xam ne si léegi nag gannaaw yàlla sa borom màng na leen ndànk-ndànk bañ mujj daje ci asamaan si léegi nag nga daal di tàmbalee gis nag toq yi nag di tàmbalee nag di wadd si nag fa taral wa daxa yaxarju min min xilaali waaw alxuraan ku koy dund nga xam ne yéemoo ci jàng ko waaye dangaa xam ne muy tekki mu jekk ba yàgg muy nawetal kaw nu bi ci boppam ni nga koy dunde yow borom alxuraan ak ni ko kenn dunduñ bokk ndaxte kawnu bi quraan la joo xam ne naatiq la al kawnu quraanun naatiq alxuraan ji wax la dégg nga al kawnu quraanun saamitun kawnu bi boo ko xoolee demel alxuraan joo xam ne dafa def cell alxuraan mii nag nekk kawnu boo xam ne moom naatiq la kawnu buy wax man de maa ngi fàttaliku jàkka jama doon tafsiire fee ca ndaamaatu ay naar yu doon liggéey xam nga jën jumaa lañ doon liggéey ci biir dëkk bi dañ wàllu plâtre bi ñoo ko yoroon waaye dañ fa dañ fa daan julli si léegi dafa am nawet boo xam ne si asamaan si bi may julli si jàkk damaa gis muy def noonu ma bi may julli tamit ma jàng laay ji bi may génn naar bi def maa téye ci bu- ci bu- ci bu- ci bu- ci buntu jàkk ji daane ma xanaa yow kaw no bi ni ni mel nii moo tax nga jàng laay ji ah mu daal rey jàpp ma ma ne ay ay ak a neexoon ñi nekk ci ginnaaw jàkk jëpp yëgandoo ko yëgandoo ko noonu waaw maanaa yëg ne maanaa laay jii kat mi ngi leen di fàttali kaw na bi ni mel yonte yàlla ma daan def lu mel noonu sallallahu alayhi wa sallam daan def lu mel noonu jullit ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw imaam imaam ji man a xam alxuraanul karim maamam yi dem xam alxuraanul karim nu kaw ni bi mel muy doxe noona loola daf leen di gën a jàppaleeg suñu borom subhanahu wa taala baatu bis jii bii gisaat naa ko ci suratul Isra foofu mu nag léeg naan ay waaya ndaw rabbukum alladi yusji lakumul fulka fil bahri waaya ndaw samba li tabtaxu min fadli innahu kaana bikum rahiman ah xoola xoola loolu sëñ bi yow da nga ne tong rek dégg nga rabbukum dégg nga alladi yusji lakumul fulka fil bahri lu tax daa am lu ngeen soxla ci biir gér gi muy ay jën yu ngeen war a indi li tabu taxu min fadli innahu kaana bikum rahiman mais ne ku leen di joow noonu rek su borom ni muy doxee doomu aadama yi nii doomu aadama yi ñoo delawut naar ba xorom sa rek waaye yàlla fu ne féete na leen fa ci baax sëñ bi seetal buy ngelaw ngelaw lu sedd guy waa kan mooy ngelaw kan moo digal ngelaw li muy def loolu nga xam ne ak péex nga ciy yëg yow nga xam da ngay yëg ne dafa péex wa arsalna riyaaxa la waaqixa ndeysaan mas naa gelaw suñ bale ca cene ba waajuru abu taaha moom yi ku amoon yëg-yëg la ci digg ma boromam daa am sa ngelaw rek mu daal di yooxoo daa ne daa ne wóori àddina yépp dañuy sàkku ci seen dag yi ñu leen di upp waaye moom moo ni upp moom waaw waaw nga xam ne moom dafa dafa dafa ngelaw rek ndeysaan mu daal di wax wax mbir ma daal koy yóbbu foofu mu ne xoo- xoolal xoolal buri àddina yëpp da- dañuy wut ay dag ñu leen di wër leen upp nii waaye moom moo ni far upp moom far benn yoon ndax moo ni upp kay ndax moo sant su ngelaw li mu ni upp ah ah waaw nun nooy ñan waaye li lépp ndeysaan donc mi ngi mel ne tey jii rek nit fekk la nga nga nga toog mu lay mu tiim la di lu upp nii ni ni nga ni nga amee loo yëg ci waa ji wane ne woo fonk dalaa fonk dalaa nanga ma nang waaye suñu borom yàlla mi nga xam ne dalaa bind dégg nga ma yi nga xam ne mi ngi la koy defal yépp ci ay xeeti taraanga yooyu nag wax dëgg yàlla war nga koo yëg nag xëy na sax mënoo di teewlu lépp ci waxtu wu nekk moom loolu mu xaw naa mënta nekk sax moom mbaa mbaa mbaa ko dana doy waar lool teewlu xéewal yi ci wet yëpp loo mënta nekk moom sax faras la ndax loo mënta ixsa da nga ko wa in ta'uddu ni'matallahi laa tuhsuha waaye nag léeg-léeg nag xanaa nag léeg-léeg nga jekk ba yàgg rek nga sant yàlla sant boo xam ne bu neex lay doon nga xam ne sa digg sa borom rek lay doon nag waaw boo xam ne yow yaay wax yaay wax sa bopp alhamdulilah joo xam ne yàlla xam na ne dëgg la ci yow yàlla xam na ne lii ngay sant nii moom dëgg la ci yow moom ah yaa ngi dégg taxoo yaa ngi gis silma xawoo maanaam yaa ngi dox say soxla waaye lii lii lii lii bu ko sant looy sant hmm looy sant wa huwa alladi daraakum fi l ardi wa ilayhi tuhsharun huwa alladi yuxyi wa yumiitu wa lahu ixtilaafu leyli wa nahaar afala taaqiluun suñu borom subhanahu wa taala nee na wa yunazilu day wàcce min asamaai mu bàyyi ko ci kaw min jibaalin man a lenn ci ay montagne yoo xam ne min baradin la bi man a am nay montagne yoo xam ne montagne yu nees lañu nees bii di wàcc di wàcc ci kaw suuf si ci ay montagne lay bàyyi ko yoo xam ne ay montagne yi nees lañu rahmatullahi alayhi suñu ustaas jéeme woon ca Kaolack nee na mas na maa dugg ci ab yoon mu ne tëll ci kaw montagne wu nees nee na man lee man li ma daan tafsir lépp ci alxuraan maanaa maa ngi nii di soog a yëg na nag ndekete ndekete ndekete alxuraan ja la muy wax nag mi ngi nii nag mu wóor ma ne Muhammad mosta war ci am yoon di yëg ci ko asamaan si waaw waaw mo mos yëg ci asu islam bu mu yëgul ci asam ci kaw ci kaw ab yoon dem fenn xanaa bi benn yoon la fi yëg te ba mu yëg ba mu fi ba mu fi yëg itam maanaam na na na tukki ba tëddee moom wax dëgg yooyu du ko xam ndax dañ ko yóbbu waaw maanaam alburaax ko yóbbu woon ci ndigal suñu borom yàlla waaye comme li nga xam ne moom la ñu découvrir léegi nii ci kaw nu bi nii nii tembe maanaam alxuraan day wax yu sew yoo xam ne nam ko waxee noona lay demee damaa fàtte léegi bi may leeral aw ka zulumaatin fi baxari lujjiyin danaa ci agsi waat su ma noppee ndax léegi ma jeexal tafsir bi waaye su ma noppee ñu fàttali ma ko am na fi koo xam ne dugg na ci lislaam te laay boobu moo ko ci dugal loo laay bii moo ko dugal loo moo ko dugal ci moo ko dugal ci lislaam mooy aw ka zulumaatin jooju danaa ci agsi waat léegi suñu borom nee na nees boobu noonu may xool ñu ma neex ma sotti leen ko ci seenu dëkk may xool ñu ma neex ma dëddale leen ak nees boobu nga xam duñu yëg sax luy am nees mën nañoo dund ba génn àddina duñu xam sax nees Sénégal bu fi nees wàccoon ndey ñi génn àddina dañ bari de man de ndeysaan am nees buy wàcc moom France laa ko ma sa seetloo baa fa demee def saa yoonoo fekk naa moom muy muy wàcc nees ma ma dama li ma sol nii maa ngi gis moom nees baa ngi wàcc moom maa ngi xool nees bi di wàcc ah lii de alhamdulilah moom amut moom amut Afrique waaw fa yusibu bii man yashaa France ca la bokk ak yeneen dëkk yi nga xam ne si yàlla soob na ko muy wàcc am nees boo xam ne si ci jibaal yooyu lay bàyyi ko waaye waaye asrifu am man yashaa est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que ah yuqallibu llahu layla wa nahaar inna fi dalika la ibra ah li ulil absar yuqallibu llahu layla wa nahaar mooy yàlla day mooy wëlbati ah waa kay mi ko yakaadu sana barqihi daanaka leeraayu melax ga daanaka xaw naa yóbbu gis ya ndax ni muy leere maanaam melax yooyu nga xam ne ñooy ànd ak taw boobu noonu leeraayu melax gi yakaadu sana barqihi yadhabu bil absar bu ne tay boo deful ndànk so boo batul sa sa bët bi far de maanaam leeraay bi leeraay bi day ëpp sa bët bi loolu mooy yakaadu sanaa barqi yi yadhabu bil absaar te lii mu koy wax yaa ngi koy dund léeg-léeg ak melax da tay goo xam ne si moom gëmm dong moo lay moo moo jaari ci yow waaw mi gëmmu taxaw rek yakaadu sanaa barqi yi yadhabu bil absaar xam nga kii moo bind kaw nu bi de kii li muy wax ci kaw nu bi nii kenn mënu ko jee wax bind dara ko ko def alaa yaalamu man xalaq huwa latiful xabiir yakaadu sanaa barqi yi yadhabu bil absaar yuqallibu llahu layla wa nahaar yàlla mooy indi guddi gi ba mu neex ko mu jële ko fi indi bëccëg gi moo fi indi bëccëg gi ba mu neex ko mu jële ko fi indi fi mooy ci li ma doon wax léegi rek mooy mooy mooy ci ci ci ni mu nekkee ak noonu nii rek xool di nu indil ay guddi sëñ bi ak guddi ni mu nu amal njariñ mu bu jeexee rek mu rocc ko ndànk daal di indi ak bëccëg ngir ñu mën a dellu ca ca ca ca moo tax nañ mi ñàkk sant yàlla sëñ musiba la na waaw musiba la de musiba la lool sax kaw nu bi moom nekk fi ñàkk sant yàlla musiba piir piir piir piir la ndax yii dafa rëy daal maanaam yii yàlla sabro def walladi jaala layla wa nahaara xilfa liman araada ay yadakara al juróom aw araada shukura nekk foo xam ne la fa war a nekk lépp nekk na fa lépp maasa jag yow tam dara jotu la ba noppi maanaam yëgoo ko ko ba def loolu nag musiba la mi ko laallakum tashkurun suratu naxli tuslimuun mi ngoog kadalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimuun leeral na ko foofu kay mooy ndax léegi ngeen womatu rek ngeen nangul yàlla saa borom rek laay ji topp ci laay taxaw wallahu xalaqa kulla daabatin mimma yàlla moo bind lépp luy jukkat lépp loo xam ne mi ngi jukkat ci kaw suuf yàlla nga ko bind mimma mooy nutfa ci mani yi la ko yàlla saa borom bind mooy am wasal ci olof dégg nga yàlla suñu borom nee na lépp loo xam ne li jukkat li ci kaw suuf suñu borom yàlla nee na maa ngi ko bind ci am wasal bul defee ne mala dong lañ ko jëfandikoo olof dana ko jëfandikoo ci ludul mala léegi nag lépp dugg na ya am xel dugg nañ ya amul xel dugg nañ suñu borom yàlla daal di ñëw notal yi am xel yi daal di yi am xel ndaxte man ji muy jëfandikoo man dañ ko daan jëfandikoo ci li la ànqil waaye maa lañ daan jëfandikoo li xëyri la ànqil waaye moom daa notal yi am xel mu ne ma fa minhum am na ci yooyu yooyu yi nga xam ne yàlla da leen a bind min maa in am na ca man yamshi ala batni yoo xam ne dañuy dox ak biir biir la ñuy doxe lu mel ne jaan jaan day watatu jaan day watatu maanaam amul ay tànk yamshi ala batnihi maanaam biiram lay doxe bokk na ci li li ngay war a sant yàlla jamono bi nga déggee lii mooy ni la yàlla def ba ba yow doxewu biir yow waaw nun mu doon doxe biir xam nga dana doy waar ah nun bu doon doxe biir dana doy waar fa minhum man yamshi ala batni kii moom kaw kii daal dëgg-dëgg moom kaw na bi ndax ndax mi ngi daal di séddale kaw na bi léegi maanaam lim bind benn bu ci nekk ak nam ko bindee loolu lay leeral fii am na ci yoo xam ne dañuy doxee ci seen biir jaan damaa tudd jaan dong waaye am na yeneen yu doxee biir yu bëgg la jaan wa minhum man yamshi ala rijlayni am na ci yoo xam ne ñaari tànk lay doxe man mii ci la bokk dégg nga ak lenn ci njanaaw yi lu mel ne xëti ñaata tànk la yor ñaar picc nag ñaar est-ce que am na ci yoo xam ne ñaari tànk la ñuy doxe bismillahi xanaa leer na waaw waaw te te kat ma xamal leen lenn doxe ñaari tànk nii nii ngay gis nii maanaam boo ko xóotalee tuuti da nga da nga da nga da nga tudd yàlla waaw boo ko xóotalee tuuti da nga tudd suñu borom yàlla waaw man nit ku nit soo ko séenee muy ñëw nii nga xam ne maanaam ak lu lu lu mu ponkale ponkale teewul ñaari tànk yi lay doxe te ñaari tànk yi dañ ko séddalee noo xam ne si fii dañ ko xaaj ci dig fii fii dañ ko xaaj ndax nekkul ne ab bant bu ne yat noonu rek wane sàdd noonu rek loolu nga xam ne kon loolu moom kon doo doxee nii ngay doxee waaye da ngay da ngay seq jéego teg beneen ba ñëwaat doxee na sax dafa rafet laqad xalaqnal insaana fii ahsani taqwiim waaw loxo yi gis nga ñàkk gi ñàkk buubu nii wàccut it fii rek la yem waaw ma loxo yi gis nga fii fii la yem maanaam de ñëwut fii loxo yi ñëwut fii gàttul ba gàttul ba fii waaye itam wàccut ba fële itam ndax kon damay ñaaw ah te yàlla jubluwul ma ñaaw man wa ah kay mi ko mi ko mi ko maa tara fii xalqi rahmaan min tafawutin waaw waaw amut lenn la ñuy corriger ci li bind alladi ahsana kulla shay'in xalaqa fa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayni wa minhum man yamshi ala arba am na ci yoo xam ne ñeent tànk la ñuy doxee wax ma ci benn yi doxee ñeent tànk ah waaw fas ak ban xar gaynde mbaam segg xoola bo mi ko kenn xamu nu mu toll man yi doxee ñeent tànk yi nga xam ne ni ni ñuy ñeenti tànk la ñuy dox gis nga nag gis nga nag takat yi doxee ñeent tànk ñun ñi nga xam ñooy doxee ñaar tànk ñoo leen di war waaw na gis ko xam ñaari tànk mi la kott ci maanaam dënnu fas bi fas waag ñaari ñeenti tànk la lay doxee moom mu war moom ñaari tànk la la kott moom ci kii moom toog léeg-léeg sama dóoru xiir waaw allahu alladi jaala lakum al an'aama li tarkabu minha wa minha taakuluun allahu alladi jaala lakum al an'aama li tarkabu minha damaa bëgg a dem surtout xaafir de jàpp leen ma foofu allahu alladi jaala lakum al an'aama li tarkabu minha noonu la ah noonu la wali tablugu ma ci doom surtout xaafir mooy xadu mujj wa rek waaleha déedéet maana allahu alladi jaala lakum al anama li tarkabu minha ah loo ci allahu alladi jaala lakum al anama lu ci topp ah li tarkabu minha wa minha taakulu ci topp déedéet loolu loolu foofu laa xool waaw kaxaa mi ngoog walakum fiha manafiu wa li tablugu alayha xaaja fi sudurikum wa alayha wa ala alfulki tuxmaluun wa yurikum ayaati fa ay ayaati llahi tunkiruun noonu la loolu laa soxla woon allahu alladi jaala lakum al an'aama li tarkabu minha wa minha taakuluun wa lakum fiha manaafiu li ma ci yitteel mooy wa li tablugu alayha xaaja fi sudurikum bi maanaa fas yi bi nga ko waree fa nga xam ne fa nga jëm muy aajo ji nga xam ne moom nga am yow waxoo ko fas yi waxoo ko ko néew déyoo ko ci nopp yi ne ko man man nag mbàkke laa jëm dangaa war nii rek maanaam fi nga jëm yow xam nga ko moom wa wali tabluxu alayha xaaja fi fii sudurikum man daal yow waxoo ko xam bo doon bo doon atte si ngay jël faaw nga ne ko sëñ bi taxawal mu taxaw nga ne ko nag maa ngi jëm ndaamaatu waaw ngeen waxaale ci ndaamaatu ji waaye kii moom dangaa war noonu rek ne cell xaaja fii sudurikum waaw nga xam ne yaay dem ba àgg fa nga jëm daal di koy taxawal mu taxaw moom amatul tànn xamut foo jëm yow fi nga jëm yow moom fa la jëm waaw fi nga jëm fa la jëm yow fi nga jëm fa la fas la jëm waaw bu dee mbaam mi fa nga jëm fa la jëm bu dee nag yi kadaali kale façon fa nga jëm fa la jëm bu dee gëléem nga fa nga jëm fa la jëm lépp sama borom defal la ko suñu borom nee na am na ci yi ma bind yoo xam ne ñaari ñeenti tànk la ñuy dox da juróom yaxluqu llaahu maa yashaa yàlla sunu borom subhaanahu wa taala nee na maay bind lu ma neex yaxluqu llaahu maa yashaa lii dañ ci dégge ne yii mu tudd fii am na yu mu tudd mi ngi mel ne bam ne alhamdulillahi alladi fa alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi jaacili almalaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulaatha wa rubaa da juróom yazidu fil xalqi maa yashaa am na yeneen yoo xam ne jalaal téeméeri tànk la yor téeméeri tànk nga xam ne bokkul ci borom ñaari tànk yi bokkul ci borom ñeenti tànk yi bokkul ci doxi biir dégg nga léeg-léeg ci comme documentaire yi nga seetaan ci loo xam ne moom da nga koy xool ba mu neex la nga bàyyi rek waaye xamoo lu mu doon waaw xamoo lu mu doon nu ko neex nu ko neex daanaka lay mel. te lépp ci mbindeef yàlla yi la bokk wal xalaaqul alim dégg nga yàlla suñu borom day ab bindkat yàlla day ab bindkat moo tax daanaka boo ko xooloon kawnu bi ni ko yàlla bindee ñi dugg ci ay foire ñu ne ah waa France yi ñoom ñoo féete wet gii waa siin ñoo féete wet gii bu ko defee nga dem taxaw xool seen waaye liñ fi indi nga xool xool ba yàgg nga daal fay jóge delluwaat fee nga xam ne moom fa la waa siin nekk nga xam liñ liñ defar ñoom tam. loolu di la di la yéem noonu noonu ngay ngay fay kaw nu bii ñu nekk nii foirub suñu borom yàlla la dégg nga boo gisee nit koo xam ne ab sinuwaa la ni ko yàlla bindee ni mu bindoo sinuwaa moom xam nga ne kii sinuwaa la moom japonais bi itam ni ko yàlla bindee gis nga ni mu mel noonu itam américain bi ni ko yàlla bindee boo ñëwee sax sa réew mii nga nekk nii rek nga xool pël bi ni ko yàlla bindee séeréer bi ni ko yàlla bindee. naar bi ni ko yàlla binde ah soose bi ni ko yàlla binde soninke bi ni ko yàlla binde ñu amu ci kenn ku nuroo sa borom booy gis pël bi xam ne pël la boo gisee naar bi xam ne naar la boo gisee wolof bi xam ne wolof la koo ci gis xam ne kii wo kii nangam la te ñoom ñëpp kat ñoo bokk lu ñu yor mi ngo wa min ayatihi xalqu samawati wal ardi wa ixtilaafu alsinatikum wa alwanikum ah xoola xoola loolu waxuma la sax seen jëmm yi waaye wàllu culture sax nuroo lawuñ ko ay culture sax mooy li ñuy wax ay mbatit sax nuroo la wuñ ko loolu lépp nga waroon cee jaare ngir xam sa borom subhanahu wa taala moo tax ñàkk a yëg yàlla musiba la yàlla ci yàlla musal ñàkk a yëg suñu borom yàlla musiba la yàlla ci yàlla musal wallahi musiba gër féetewu ko kaw musiba féetewul kaw ñàkk a yëg suñu borom subhanahu wa taala lii may wax nag waxuma ko ngir ne xaarim daa déedéet du loolu dee demewut noonu de waaye damaa xam ne lii musiba la ma di ko wax loolu la man xam naa ne lii moom musiba la moom bu ma dalee bu dalee kenn ci yem lépp musiba la waaw musiba la maanaam maanaam bi si fa am moom musiba la moom yàlla buñ la teg ci jaar jëme la ci biirum xabru te xamoon yàlla yow moom ñëpp yaa leen ëpp problème yow waaw néew boobu moom boo ñuy lijjanti néew bu am problème dëgg mooy néew boobu néew boobu nekk ci kaw nu bii sëñ bi maanaam am fi juróom fukki at ba juróom-ñett fukki at maanaam amu fi fenn fu mas a toog di xalam yàlla bañ teg ko ci jaar yóbbu ko ci pax kooku am na problème waaw mu ko dëgg dëgg problème foofu la moo tax bàmmeel yi daanaka mu problème yi fa nekk yëpp mooy ñàkk xam yàlla dong la waaw bàmmeel yi problème yi fa nekk yëpp ñàkk xam yàlla nag fa lay dellu ndax ndax ko ko xam saa borom subhaanahu wa taala jafe-jafe doo ko am yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam dañ koy xam ci ca nam nu nam nu jàngalee boppam ca fañ ca mën a yem yaxluqu llaahu maa yashaa lu mu ci doog inna allaha ala kulli shay'in qadir est-ce que nee na yàlla tëliwul dara wax na dëgg de inna allaha ala kulli shay'in qadir dama ne woon fii laay yem waaye laay ji topp laay taxaw laqad anzalna ayatin mubayyinat maanaam wàcce naa man sunu boroom ay aaya yoo xam ne yu leer la waaye li muy leer leer leer leer leer leer bul defee ne ñëpp ko gis man mii ko wàcce def ko muy ay ayaat bayinaat maay xool ci ñi ma soob ci ñi ma bind ma xool ca ñi ma soob ma teg leen ci siraatu mustaqim wallahu yahdi ma yashaa'u ila siraati mustaqim wax na lu mel ni suratul xaj yi daane wa kadalika anzalnaahu ayatin bayinaat daane wa anna laa yahdi ma yuridu wa anna laa yahdi ma yuridu mbir yi lu mu leer leer leer leer te ña yàlla bëgg mu leer ci ñoom dong la waaw ndax léeg-léeg mbir mi da nga naan waaw lii naka la mën a nëbboo kii fekk maanaa yow mim leer du yaa yaa ko leeralal sa bopp de yàlla la neex mul mul walakin jaalnaahu nuura nahdi bihi man nashaau min ibadina loolu nga war a sant yàlla mooy yii bu fekkee ne yàlla ubbil na la ci bunt ngay dox nii di dem sax fekk yaa ngi xalam ci suuf si ngay dox wala nga yëkkati sa bopp di xool asamaan di ci xalam wala guddi gi maanaa nga gis weer wa ca digg asamaan sa wala jant bi yooyu yëpp nga cay xalam yooyu sante ko yàlla alladina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim lu ci wa yatafakkaruuna fi xalqi samawati wal ard maa ngi taxaw foofu dellusiwaatal la ci aw ka zulumaatin jooju ka ca tuub dugg ci lislaam lan moo ko ci lan moo ko ci jóobam dugg ci lislaam kooku ab marin la woon maanaam moom liggéeyam ci géej la jëm day faral di dugg ci biir géej xam nga am na ñoo xam ne seen liggéey loolu la dañuy faral di dugg ci biir géej di ci wut ay xibaar daa am benn congrès bu am muy leeral moom lim gis ci barab sàngam te loola doon loo xam lu ko yéem la en tant que koo xam ne marin la koo xam ne day dugg ci géej gi mu ne moom am na fu mu egg ci biir ndox mi foo xam ne foofa ci boppam maanaam na mu lëndëme ngir xóotaayu foofa lëndamaay ba àgg na foo xam ne jën ya fa nekk lumière yi leen yàlla sama borom defal muy seen bët yi dafa mel ne dañ koo méngale ak barab boobu daanaka boo ñëwee ba nga xam ne yaa ngi waaj ak ci satxul ma foofa noonu lëndëm googu du fa nekk li ko ci gën a yéem nag mooy jën ya nga xam ne ñooy dund foofa bët yi ñu yor ñoom ni méngoo ak lëndëm googa nga xam ne dañ fa mën a jaar di dem ñoom ma daa wute ak jën yi nga xam ne ñoo nekk fi nga xam daa jege ak satxul ma moom bukk lañu ay bët bi muy expliquer lii di ko expliquer di ko expliquer ni mu gën a xóote daa noppi rek ab jullit daal di jël palaasam fi mu toogoon ne ko lii nag ab junju la bu leer boo xam ne suñu borom yàlla doon na ko junj sóoratu nuur aw ka zulumatin fi baxrin lujji yaxshaahu mawju min fawqi mawju min fawqi saxaabun zulumatum baaduha fawqa baad ida axraja yadahu lam yakad yaraha ñu leeral ko lii lan la ñu leeral ko laay ji lan lay wax maanaam misaal mi muy jox waa ji daa leeral ba àggal mu ne waat naa ne yàlla waat naa ci suñu borom yàlla ne Muhammad mosu dugg ci fi fi ma dugg mosu faa dugg lii su ko xamee rek kon kenn keneen ma ko xamal koo xam ne moo bind kaw nu bi moom noonu ci la dugg ci lislaam far benn yoon am na ay xeeti xaqaa'iq ay réalité yoo xam ne sëñ bi na mu doone noonu la ko yàllay wax donte misaal mi suñu borom ma ngi ca doon joxe misaal mi neen waaye nag noona gis waaje dunde na ko noona gise ko noona kooku nag ngëmam ni muy foore ak ni muy dëgëree du bokk ak yow mi nga xam ne sa ngëm jaariwut foofu xanaa xamu leen ngëm yi dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo kii dañoo tafaawut ngëm yi dañoo tafaawut dañoo rawante lool lool lool lool lool ngëm yi dañoo rawante kenn daanaka tollewu tolloolewut ak moroom wàllu ngëm ci wàllu ngëm nii ndaxte yi nga xam ne day dolli ngëm léeg-léeg kii lim ci am ak keelam ci am dañu tolloo fi mu toll nii yi nu yàlla sa borom jox ñu war cee dolli suñu ngëm léeg-léeg yow su jëm bopp dañ ci xaw a sàggan xam nga xam nga xam nga ci yooyu ñuy jox yu dolli ngëm boo boo ca xam ne moom moom moom ni muy dollee ngëm man yaakaaruma ne benn dana ko ci dollee ngëm yi mën naa nekk nag waaye xaw ma ko muy alxuraan mi waaw maanaam moom ni muy doolee nga mu yaakaaruma ne ah ci li ma xam lu koy doolee nga mu xaw ma ko maanaam ni ni ko suñu boroom yàlla wàccee ak ni ni ni li muy wax ci biir daanaka suñu boroom yàlla lim lim ko melale ci ne raxma la rek daan xaw naa doy wa innahu la huda wa raxma jooju muy wax ak wa nunazilu min alqurani ma huwa shifaau wa raxma lil muminin daanaka loolu xaw naa doy waa téere boo xam ne yow boo ko dee diglu nii rek diglu nii donte xamoo li muy tekki waaye yaa ngi koy diglu yërmaane fekk la ci ah maanaam diglu gi rek maanaam yërmaan dañ ko caa dañ ko caa tabax te yàlla yàlla nga wax ci alquran wa ida quri alquranu fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamun téere boo xam ne yow boo xamee ne yaa ngi koy jàng nii sax xëy na sax boole sax firi ji sax dimuwut noonu ñu lay bindal ñaari téyam ah ah waaw boobu téere yàlla boo ca boole xam li nga xam ne moom lay wax mbaa nga am loo ca xam wallahi li im taymi rahmatullahi alayhi di wax naan damaa réccu damaa réccu ci sama mujjug dund lan ni ma sànke li ëpp ci saak dund fii gayri maanil quran ak kooku li mu liggéey ci lislaam waaye ànd ak loolu nee na moom réccu naa saa dund gi li ci bëri sànku na fii gayri maanil quran maanaam dem na ba ca mujj ga mu yëg ne ndekete bu xamoon ne yëf yi nii la tëddee kon léppam ci alxuraan la koy jeexal anoon nag ñoo ngi ñoo ngi nii yor ko noo ngi nii yor ko waaye dañ cee sàggan wallahi yàlla sama borom jox na nu xeetu xéewal goo xam ne si xéewal tull ni te xéewal yëmu yëmut ne moom waaye nag dañ cee sàggan wa inna kathiran min annaasi an ayatina la gaafiluun yàlla noonu yàlla sama borom wéeral bañ wéer peleg peleg peleg peleg ci jàngoroy xafla jàngoroy càggante yàlla nañu ci sama borom yàlla musal yàlla noonu yàlla boole ci ñi nga xam ne alquraan ay doon seen dund mooy nekk lool lépp seen xol wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin